du wax ba pare ñu ne dof bi doon wax du wax ba pare ñu ne borom fit bi doon wax duñ ba pare ñu ne jaahil bi doon wax bu waxee ba pare ki am xam-xam dina nangu ne am na xam-xam ki amul xam dina nangu ne am na xam-xam ku soxor ak ku soxorul yëpp dina nangu ne am na xam-xam ndax euh, émission xalif général sax mën na koo seetaan sëñ Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg loolu te ànd ak wér ak bépp kilifa diine ndax waxam day ànd ak xam-xam ànd ak njëriñ ànd ak teggin kon nag di tubaab tubaab lu ba sànq loola dal yaa ko teg sa bopp Afrique la nekk jóg leen seen bopp tubaab bi fonk nañ seen moomeel ñun nañ fonk suñ moomeel domaine bii nag France 24 sax yabuñu ci BBC yabuñu ci dinañ seeti njëriñ man nag maa leen indil ki leen di lor maa leen indil ki leen di jëriñ loolu kon du complice ak benn sëriñ mais yéene la rek indi leen lu baax kon ku rek yàlla ngeen fa am lu kawe bu baax a baax bu ngeen gisee yi ma nekk nii euh, mooy mbedd ci biir Touba ñu ngi Touba tooguñu Dakar ci saal rek naan ñu ngi Touba déedéet dana ñëw ak borom ndaamaat xam ne ku dugg ndaamaat du seetu fajkat ak ñaankat moom lay seet kooko di kan sëriñ Muudu Kebe nga xam ne que ki sëriñ buy toog di wax sax ñu bari defe naa ñu bari mën na leen jàngal xam-xam ku soxorul dina nangu ku kon daal grossiste la ñu invité tey sëñ Modou Kébé yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal sa émission looy lay seetaan waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu Cheikh Daara ñoo ngi lay delloo nuyoo ak siyaar di ko delloo mbooleem ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci liggéey bu sell bii ngeen di def yéen ci ñaanu baax baax tawféex di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal yàgg ak wér tala ko fekkee di ko ñaanal mboolem xalifa généraux yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew ak bitim réew yëpp rek di teewlu ba baax a baax tey ñaanal itam ñi nga xam ne suñ borom dañoo boole ñoom ñu seq ab liggéey te lépp rafet wax dëgg yàlla ñoo ngi leen di sant ñoom di leen ñaanal mm. di siyaare biir réew mi ak waa bitim réew bàyyiwuñu kenn ñi nga xam ne ñi ngi teewlu suñ jëm yi nga xam ne yàgg nañ koo gis ñoom itam ñi ngi teewlu baax a baax mm. di wax ne itam ñoo ngi leen di fay am nuyoo itam ci studio Baye Ousmane Kébé bii ñu nekk muy suñu wayjur mm. moom itam ñoo ngi koy ñaanal fa tëdd yàlla defal ko jàmm bu baax a baax a baax noonu la ñuy siyaare yéen ñëpp rek di leen jox seen wàccuwaay mm. di siyaare mboolem ñi nga xam ne ñooy teewlu mbaa ñuy teewal ci réew mi ak bitim réew yëpp rek ñoo ngi leen di jox seen nuyoo bu baax a baax di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maaleykum salaam wa wa barakaatu tey kin leen indil mooy Serigne Modou Kébé mm. benn yoon leen ko mas a indi tegtal euh, bi mu ñëwee nag bàyyi na fa trace euh, ndax lan xam-xam bi muy waxee day dugg ci xol bu baax a baax te xel da koy nangu te gis naa sëriñ boo xam ne kat dafa mën a critiquer sëriñ mais daf koo nangul ne ba kii nag moonu man ñun ñëpp wax ma ko te loolu ku soxorul nag dina ko moo koy def daal hmm. kon euh, te kooku tamit euh, naa bañ wax daal hmm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax xaw naa ko gëj a dégg trop hmm. bu baax euh, bindal bindal maire bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci bi mu noppi ki ndox ci mbedd mu dugg ci biir Tektal mooy daw ci biir Tektal TV ak Serigne Modou Kébé nga xam ne que xam-xam lay waxe bindal 77 524 41 77 77 la commencé fa la yem 70 commencé 77 la numéro bi commencé fa la yem. Hmm. bi am na WhatsApp. Hmm. kon nag boo déggee daaj ak boo déggul daaj yëpp ay 96 ak 98 ak 79 yu métti yooyu nekku ci 77 524 41 77 numéro bu yomb jàpp am na WhatsApp nga euh, jokkoo ci WhatsApp bu ko defal audio yi 10 minutes nag. audio yoo xam ne ko bu koy avance da koy déglu du comprendre déedéet defal ko audio rek ngeen tënk wala nga woo ko bu ko jotul nga insisté waat boo ko audio mu yéex a tontu dollil ndax tamit da yor kurus lu bari ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax mhm. sëñ Modou Kébé defal beneen bi 76 538 26 80 76 538 26 80 sëriñ nekk ci ndaamaatu nga diis ko sa soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara te mën na lépp mhm. euh, sëñ Modou Kébé mhm. gis nañ ne léegi ci télé bi ci internet bi mm. euh, sëriñ si mm. danoo xaw mel lu takku ndax TikTok bi mm. daanaka sëriñ boo xam ne que euh, maanaam bu mbiri communication jaaroon yoon daanaka doo wax léegi nag ku ne am na fu mu waxee di wax ba am ñu ci loru nga xam ne que léegi yow fi nekk ni nga ma gisee nii joueur bi football ci station teere xaar yàlla lu mu néew néew néew doole ci wàllum football ak Messi ak Ronaldo ma nekk ca kaw buñ leen di bind seen tur mhm. joueur rek lañu bind mhm. ndax ñoo bokk même profession mhm. comprendre li wax mi ngi yàq sama téléphone bi de te man yi moom dëkk bi dafa sant njaay ci man téléphone iPhone 16 laa soxla gaaw damay anticiper ci kanam maanaam Messi dañ koy bindal joueur Cristiano Ronaldo ñu bindal ko joueur euh, ki nekk ci teere xaar yàlla bi tam joueur lañ koy bindal kon boo indee sëriñ tam sëriñ bi lu mag mag mag mhm. ak lu mu cuune cuune bu xasee ba ne maaraab la wala sëriñ la rek yéenay tollooy lettre mhm. léegi kon mais xam ne nag yem nag bokkul mhm. léeg-léeg nag nit ñi nag parfois mën naan maas noonu gi jël ñëpp def leen ci sàkku te fekk junni sëriñ bu la naxee ki ngay soog xam loo ko wax tooñ ko léegi ma bëggoon na nga joxee tegtal sëriñ bu jaar yoon sëriñ bu am xam-xam sëriñ bu jub sëriñ buy ñaan yàlla nu mu mel day lekk lu lew day wax dëgg du guddi gi day wérd du nekk ci tiktok di defi live nga indi ñu melokaanu sëriñ bu baax nu mu mel pour nit ñi gën ko bàyyi xel hmm. waaw waaw Cheikh ñoo ngi lay dellu nuyoo siyaar baax di wax ne hmm. ab sëriñ moom bañ ne sayxul asraar hmm. mooy ki maîtriser asraar maanaam nga xam ne daf koo jàng te damay wax ne lu ci métier mu mën di doon gars yi nangu nañ des koy jàng waaye métti métti sëriñ moom am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne mm. maanaam di sa ko jàng loolu nag fa la njuumte commencé parce que nit ki mm. maanaam nit ki loo doonutub dongaam doo doonu sëriñ yëpp loolu ñun ñëpp maasé nañ xam loolu mm. nit ki moom loo jàngut jàngoo bëgg a tari moom xam nañ ne amut fenn du ci mel nam jàng nag waaw kon li gën a am solo ci doomu aadama mooy la nga woote woo nit ñi ne da nga koo xam ndax fekk na booba nga jàng ko ndax fekk na nga gëstu ko bu dee nag mayu yàlla yàlla mooy seet seet ab jaamam lu ko soob mu jël la ko soob def ko ci jaamam loolu suñu yoon diwu ca waaye mbirum asraar moom nga xam ne mbirum mbirum waaw maanaam asraar mooy ay sirru maanaam loo xam ne dafa am asraar bu dee sayxu asraar dafa am ay maanaam ay xawaayit maanaam dafa am ay ponk yoo xam ne moo ko tënk waaw waaw mu ngoog voilà mm-hmm. loolu laa bëgg wax mm-hmm. maanaam loolu ni ko xamee mooy nit ki il faut nga jàng mm-hmm. maanaam ilmul uróof parce que uróof yi ci nga mën a ci nga a maanaam maanaam maanaam nit ki maanaam tur bi nan lañ koy bindee mm-hmm. xam nga su fekkee jàngu ilmul uruf mm-hmm. léegi boo dikkee ci adat bi ci ngay ci ngay juumee moo waral foofu day am juumte mm-hmm. soo xamee adat yooyu ba noppi nga wëlbati ko jël adat yooyu maanaam euh, ilmul uruf boobu nga xool moom itam lan la la jox maanaam ilmul uruf bi lan la la jox ci boo ko doon peese waaw nga man ko peese araf wu ci nekk nga xam fan la dëkk parce que 28 lettres moo am 28 lettres ci lañ tëgg alxuraan ci lañ tëgg xasida yi ci lañ tëgg salaatu yi ngay di gis yëpp mm. ci lañ tëgg tur yi amut lenn loo xam ne fii ne boo ne woon tey tegtal teewee boo ko waxoon tegtal in faut nga bind taa def keef defaat taa taa tombe defaat lam mm. kon gis nga ko il faut nga àbb ci araf yee li nga bëgg maanaam lépp loo wax nag mm. foofa ngay àbbee araf yooya def ci li nga bëgg def araf yooyu nag da nga ko war a xàmmee xam buñ ko séddalee quatre tabexa yi benn bu ci nekk ñaata araf lay am nga mën koo xam nga mën a xam ne lii tab unaari la tab u turaab yu la tab u awaa yu la hmm. maanaam bii suuf la hmm. bii ngelaw la bii ndox la bii sawara la parce que élément yooyu moom la yàlla rëddee xaalam bi ni mu demee hmm. ndax xaalam bi ni ko suñu borom bindee nii boo ko xaajee ñeenti parti xaaj bu ci nekk dafa am fu mu dëkk noonu la ñu xaajee itam ilmu nujum maanaam fukki burj yi ak ak ak ak ñaar nga xam ne mooy maanaam falak bi ni muy dawee nga xam ne ci la jant bi di daw weer wi di ci daw moom tam dañ ko xaaj ñeenti parti ñu wax ne maanaam euh, wolof di ko wax naan cooroon ak noor ak nawet ak ñu ko waxee waaye boo ñëwee itam maanaam ci arab tamit noonu la ko faslu sita yi mm. faslu rab yi faslu xarif euh, euh, déedéet comme noonu la koy waxee muy muy ñeenti parti mm. léegi su ko defee ñeenti parti yooyu mm. benn bu ci nekk dafa séddlu ko naari yu turaab yu awaa yu maa yu léegi araf yi nga xam ban araf moo dëkk ci boole leen doon séddli ci buróoj yi maanaam buróoj yi yan araf lañ lañ am wa samaay saatil buróoj wa yawmil maoot boo ci wëlbati ko nga dikkaat te taxawaatal uróof yi nii soo ko taxawalee nii mooy ñeenti élément nga xoolaat leen ci uh, bii da ngaa jëloon ci da ngaa jëloon guddaay bi boo jëlee guddaay bi moo lay jox tabia yi benn bu ci nekk arab bu fa mu su fekkee da jël nag maanaam uh, uh, a maanaam toolan bi maanaam yaatuwaay bi boo boobaa la la muy nekk mooy day daal di nekk nag léegi kon da nga leen a maanaam séddale ci kaw-kab yi kaw-kab nag ak buroj bokkunu loolu il faut nit ñi xam ko lool itam maanaam ki jàngal asraar mooy mën a ràññetle loolu mm-hmm. xam ga léegi yooyu tamit soo leen ràññetlee mm-hmm. ci ngay door a mën a xam ne kon araf yii kat nangam la dëkk kon kii mm-hmm. burjam wala kawkabam ka an na annahu ka annaa kawkabun duriyun yoo xam ne min sajaratin mubarakatin saytoonatin laa sarqiyatan wala xarbiyatin yakaadu saytu ay yodda yi walaw lam tam sas unaaru nuurun gis nga ko noonu la ko alxuraan waxee kon ka annaa kawkabun duriyun dafa wasama eh, eh, maanaam maanaam wasamaay saatil buróoj boo demee dafa am isa sab su ko wérat way sun nu joomun biddiw yi kat an kadarat mm-hmm. moo tax sun borom waxoon ca maanaam alquran mm-hmm. boo demee mu ne law taalamuuna xas uh, uh, maanaam uh, law taalamuuna asimun innahu la quraanul karimun mm-hmm. maanaam bu ngeen falaa uqsimu bi mawaaqi'i nujoomi laa bëgg a wax falaa uqsimu bi mawaaqi'i nujoomi wa innahu la qasamun law taalamuuna asimun gis nga ko mu ne su ngeen xamoon li ma def ci maanaam biddiw yi xam li def ci maanaam la nekk ci biir bidéo yi ak na ñuy doxee mm-hmm. kon yàlla xam na ne suñ ko xamoon rek da caa géñ mm-hmm. ne lu lu buñ ci xamoon lu yéeme la léegi nag loolu da ngay dugg ci biir xam-xamu ilmu nu joom mm-hmm. soo ci duggee nag ci ngay mën a partagé loolu te loolu am njàngale ko mën a jox du caagi ne da ngay toog rek dégg ñu naan xam lu mooy bélier nangam nangam nga bëgg xam la nekk ci am lu loolu mënul ne il faut itam nit ki nga xam circonstances yi mu juddu maanaam tey bu fekkente ne ci béréb sangam la juddoo wala weer sangam la juddoo mm-hmm. weeroo fan la commencé ak fan la yem biddu biddiw ba fan la ci commencé ak fan la yem mm-hmm. nga xam ne kii lii mooy ab mm-hmm. nga xool ci biir xam ne lii mooy tabiam nga xool ci biir xam ne lii mooy aw kaw kaw aw kaw kabam nga xool ci biir kawkab boobu xam kawkab booba ban bis la am ak it kawkab bi ban couleur la am soo ko mun mënta xam mm. mënoo liggéeyal jaaro nit maanaam mënooy liggéeyal nit jaaro mm. jaaro ba di dox loolu mënul ne il mm. faut da ngay xam tab u ba noppi xam buróoj xam kawkab xam bis ba ba noppi xam la nga cay mooñee loolu mooy moo moo jiitu loolu nag su amee ba noppi nga xam alquran boo ci doon jël tey di ci def maanaam nga xam ban aaya moom management ak li nga bëgg a def maanaam ban aaya nga war jël pour mu composer ak li nga def parce que moyenne plus ku ne xam na ne mën nañoo ànd waaye moyenne moyenne du dem pilis pilis du dem pilis ak moyenne ñoo mën a ànd góor jigéen ñoo mën a ànd maanaam mm. njaboot door a mën a sos waaw xam nga ko mm-hmm. waaye góor ak góor jigéen jigéen xam nga dara du fa sax loolu moom ku ko xam ci ku ku xalaat ci xel war nga xam ne sax lii moom mm. maanaam sa sa maanaam lu lu wér la mm. maanaam xam-xam tamit noonu lay doxee dafa am ay xawaayit yoo xam ne ala kulli ali nit ki daf cee war a jaar ba xam ne ca dëgg dëgg lii daal mooy xam te loolu am njàng la koy may soo jàngee nag ba loolu nag gannaaw ba nag la ci top mooy sa kurus gii da nga ko war a fonk waaw maanaam bàyyi jaxasoo bu bari parce que nit bu fekkee ne da ngay bëgg di ñaan rawaan yi di la nangul mm. ngay faj soxla nit ñi mm. maanaam doonu na fuñ la séntu rek war na la faa gis loolu moom loolu moom sax dafa yéenu sax maanaam nag waaw sëñ bi loolu loolu mënul ne kooku kooku mënul ne déedéet kooku mënul ne mm. dañoo wax ne pour bi bëgg jaay mburu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mm-hmm. il faut mu fanaanee lëkk mburu bu bañee ay client am ñàkk mburu waaw ñun ñëpp nangu nañ loolu hmm. kon nag kon ñun kon kay sëriñ di lekk lu lew di di wax dëgg ba noppi di dëgg surtout hmm. surtout wax dëgg xam nga sama émission bële jàll waxoon naa la ko fi hmm. ne woon naa leen li a am solo ci doomu aadama mooy wax dëgg maanaam tey boo joxoñee góos bu ñëpp doon bu bu bu ñëpp doon wax muy dañit buñ dikkee gis ne góos nga joxoñoon ñu ñu gis góos kon bu la déggee kon ab sëriñ warul sax toog naan la Euh, maa ngi ñëw te fekk départ gu ma loolu rek ñàkk ah, wax dëgg waaw loolu ñàkk wax dëgg la parce que mm. loolu mooy wax lu amul wax lu amul mooy wax lu doonul dëgg rek te gis nga loolu xanaa xamu ne mm-hmm. làmmiñ wax lu doonul dëgg mm-hmm. wala làmmiñ bi wax maanaam ay ay ay jëw wala làmmiñ wax na su du noonu xanaa xamu ne làmmiñ mooy woo yàlla te léegi nag dafa am ay ay baatin yoo xam ne. Mm. su nekkee ci nit ki te jéemoo koo dénoncé. Mm. maanaam boo ne allahuma lay tax yàlla du la wuyu ci yow lay sirru bi ngay liggéey mën naa wér de. Mm-hmm. waaye sab xol xam nga yow ma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ataa Allaahu lan moo fay jariñ mm-hmm. bi xalbin salimin gis nga ko maanaam xal xol bu sell ci la gaa yi rawante ku la gën a sell xol muy dëgg ci moom mm-hmm. mu gën laa mën a jaamu gën laa mën a aada wala ñu nekk ci luñ mën di doon yow nga wéet ak yàlla moo leer de fii amul kenn ku lay gis njistaloo ci li ngay def ngay jaamu yàlla téye sa kurus gii maanaam di lëggéey turu yàlla wallahi na asim bis bu njàqare amee boo ne yàlla maa ngi na la may maa ngi nii parce que yàlla ku mm-hmm. nag dafa bokk ci mbirum sëriñ mm-hmm. li ngay sol sell mm-hmm. say wax tamit noonu nga doon jaamu ko tu yàlla loo xamut bu ko foo wutu dara bu fa dem. bu fa dem ma waaw. ma allah ma mu ko loolu rek mooy problème bi. sëñ Modou émission bi ngi neex hmm. Tektal TV bi sëñ Modou Kébé bi ngi aj niveau bi ba mu kawe bu baax. ngeen bàyyi ko xel lii leen bëgg xam-xam mais ñun nag nekkuñu di jël ay sëriñu comédien boo waxee ñu naan bës beeg ñu nekkuñ ci yooyu gis nga. Euh, sa métier bu nangu kenn du ko foowe hmm. sa métier bu nangu kenn du ko caaxaane hmm. nga doon nit dëggantaan ñu la jàppee nitu foowukaay bu ko def moo tax Tektal TV du ku ne fi toog di wax am na ñu fi toog doon toog di wax dootuñ fi toog di wax ndax lan fii dëgg moo fi am te boo ci mënul rek demal ma dem léegi nii nga waxee nii kon làmmiñ bu barke mën na am ci wax dëgg léegi loxo bu barke nag lan moo ko indi comme ñu naan xam ñoo xam bu leen bindalee Fatiha mhm. ak ayatul kursi jox leen mhm. mën nga gis jàmm am ñoo xam buñ bindee nga sangu doo gis dara mhm. li li waral loolu te Fatiha bi mat na ayatul kursi bi mat na big bi big la wala daala daala mais li waral nag jàppul loolu nit loxo bu barkeelu lu ko indi waaw xam nga loxo bu barkeelu maanaam yu bare bare dana ko waral mooy ndax yow li nga li maanaam li nga yor di ko liggéeyee mm. maanaam ci noo ko amee ndax da nga ko amee rek ci ci ci ko war a amee wala amee woo ko ci ni ko war a amee mm. parce que am na ci mbir ñoo ñoo xam ne li ñu yor yor nañ ko ni waaye barke néewu ca maanaam nañ ko war a wutee pour amee ca barke noonu duñ ko wutee noona beneen ba ca toppin mooy loxo buy bind di faagaagal ay nit ah. wala muy bind ay dëddale eh. wala muy def lu xaraam mm. loxo boobu bu bëggee na bëgg a def lu baax yàlla day ban donte nag maanaam jëmmee xam-xam am na ci loo xam ne mën nga cee def ba toll ci yenn façon niveau yoo xam ne wala yeneen xam-xam yoo xam ne xañ na mën nga doon nit kene nit di def lu la soob hmm. di def leneen waaye boobaa ci geneen wàll lay jëm hmm. xam-xam sulmaani yi lay doon hmm. lu mel na nga jël benn affaire boole ko ben affaire def nangam mu kii loolu ñun jàng nañ ko xam nañ ko waaye ñun lañ opté mooy turu yàlla lañ lañ lañ lañ opté ak jëfi yàlla ak wax yàlla ñun foofu ci la ñuy dox te mooy comme li nga wax nii mooy nit ki buy buy buy maanaam buy bind buy bind nii maanaam loxo bii bind da am na ci loo xam ne nag des koy liggéey buñ ko liggéeyee mm-hmm. dañ la ko jox di ko raxasoo maanaam loo bind loolu dañ koy accordé mm-hmm. am na ci yoo xam ne ay composement la ci daa mm-hmm. boo ko composé moom itam xam daaje na nga koy liggéeyee daa jooju boo ci bindalee nit nit ka da koy gis am na ci loo xam ne ñàkk gaa gis ci nit ka la maanaam nit ka waaw nit ka moo nit ka moo sellut waaye foofu itam sell di am na fa waaye rabit am na ca waaw rëxasoo ndab li ba noppi tëb tëb sotti ca am na ca waaw su ko defee yooyu nag maanaam nit ki day xam ba xam euh, am na it am na loo xam ne li tax nit ki du gis mooy ay àq yoo xam ne dafa dox ci digg ci ay way juram parce que xam nga yooyu itam maanaam li may gàllankoor bari te kooku kenn ku ci nekk nag mm-hmm. da ngaa war a xam fa jaar ak moom ci kurus waaw parce que il faut nga dem ci listixfaar xam dog ba nga ko cee liggéeyal door ko mën a ñaanal moom ma gis yooy tamit bëri na ay tegtal yu muy yooyu am mooy waral nit ki ay léeg-léeg muy bind mm-hmm. maanaam ba sonn te du ko gis ñàkk barke ca la maanaam ñàkk xam mm. ca la bokk ñàkk maîtriser la ngay def am na ca waaye yi tamit nag lii ma la wax ni moo ci am na ñoo xam ni seen xëriñ soxor na soxor goo xam nii même tey boo doon bëgg bind dara nii wala nga bëgg a defal dara mu leer ko boo ko defee loola sotti kooku mën na la koo yàqal même même même rab fi ne day def loolu waaw yooyu tam da ko da koy indi ci mm. côté boobu jërëjëf euh, sëñ Modou Kébé dégg na li nga wax bu baax a baax mi ngi am solo bu baax a baax léegi li ma bëgg a ñëw ci wàllum bind mm. euh, da ngay gis sëriñ su bari euh, dafa am ñu leen di bindal te nii nga waxee nii tamit lu may soog a dégg la mooy am loo raxasoo ak nangam loo def ci daa ji mhm. léegi boo ko te léeg-léeg risque dafa am mhm. da jël nit di ko bind loo jox koy secret muy bind ba mu yàgg mu jàpp ne sëriñ la la nga def ca barke ba ca loxo ba bu demee te amul ndigal bu demee loolu da koy topp wala du ko topp mbaa xam nga ne ñu bëri bëri ñu ngi am daase mbir a ngi leen di topp wala mbir di leen dal xam nga lu ko waral la mooy dañoo gis nit que di bind mm-hmm. ñu jël di ko toppandoo dem di bind ba mu yàgg ñu ne am ñaankat la nooyee yaay xam nga lu ci problème bi mooy dañu mas a tase koo xam ne mm. duñ ko nettali parce que da ngay gis nga am na ci nit ñoo xam ne wallahi wa bi sarafil quran bis boo bindee dara ba jox leen bañ sangoo ko yow moom côté ba nga àdduna ak àllaaxira sa mbir xanaa nga teg sëriñ bu xam la saraab te loolu yombutul leen euh, maanaam yow ki yow client bi moo yow la yàqal mu ngoog mm. yow si jëm bopp may bind te la ngay bind xamu xamoo ko ah, ah. yow yaa am problème ah. xanaa xam ne am na ñoo xam ne fi ne ku leen tijji tëju xamoo loolu ku leen tijji nii ma yow nga yow am na ñoo xam ne ku dindi la nekk ca ñoom yow la nekk ca ñoom ñëw na ca yow xanaa xam ne gis nga xaatimu Suleymaan tam na maanaam fi ne bu fekkoon ne aajana ñu leeral ko sax dañ koy leeral gis nga xaatimu Suleymaan gis nga am na noo ciy fajee am na noo xam ne waaw code bi soo ko bindeewu soo ko noonu sëñ bi soo ko bindewul noonu boo ko joxee bu feebaree mm. yow encore yow yaay tëdd waaw waaye il faut nga xam nañ koy defee maanaam am luñ ca tëj lañ ca tëj moo tax nit ku bu ko sangoo moom ci jëm boppam dana wér ba noppi dara du la ci toppee sëñ Fallu radiyallaahu anhu mm. borom bis bu am solo bii di bëgg a ñëw dafa waxoon lu am mm. solo mm. dégg nga mu borom studio bii dafa waxoon lu am solo sëñ Fallu dafa waxoon ne loo teggee ci nit te xamoo foo koy teg yaa koy tegoo yaa koy tegoo waaw loolu nag ñu bëree bëri loolu leen waaye bind di bind te xamoo ne fii ne gis nga mbind mii mbind xam nga am na waaye mbind dafa am ay sart mbind wër ta taqaloo wërta taxaloo bind gëmmu wërta gëmmu waaw am loo jiital ca kaw mm. ba noppi door indi bind bi mm. boo noppi am na loo ko war a tëjee ah. boo lemee téere bi nii wala mu dik ah. am na noo ko war a mën a coller ba nga xam ne maanaam ngelaw di ci dugg gis nga am na téere yoo xam ne xam nga mm. ñu bari ñi ah. ko lemee bañ lemee maanaam maanaam euh, kiiwuñu ko maanaam maanaam lañ a def waaw waaw protection amu ca te gis nga téere nii ne dama ci borom xam-xam yi mm-hmm. maanaam téere am na noo koy bu fekkee ne normal normal mm. maanaam saytaane bu ca ngelaw mënee dugg mm. saytaane bu duggee ci biir téere bi da koy yàq lii la wax nii laajal borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo gën a kawe mm. ci niveau yi ma nekk man di ko waxee nga laaj ah. am am xam ne li ñu yor li ànd ak ñoom mooy dikk di yàq loolu loolu tamit boo ko boo ko xamee ci nit ki am na la nga koy jox day am loo ci liggéey yàlle mm-hmm. loo xam ne moom da ko mën a utiliser di gis ba noppi ba noppi te am benn benn jafe-jafe loola day daal dañ loolu it am na ci ci ci liggéey bi mm-hmm. léegi sëñ Modou Kébé di ngeen lim wax jërëjëf niveau baa ngi kawe baax a baax Tektal TV en direct ngeen abonné ba suurus ba cloche bi hmm. émission bu ñëw ngeen am ko li leen soxla kuy wax xam-xam nga xam ne ab xalif général sax mën na seetaan émission dama dégg nga ne léegi bind dafa am loo war di ubbee am loo war di tëjee hmm. te ñun bi nekkee ci daara ji da gis kuy tàmbali bind da bind en sawa jàlla booy daal daara daara ñu bind la wan a maarixu bu mm-hmm. bindee ba pare buy jeex nga bind sadaxa laahu laxasim wala tamit buy jeex nga bind allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mm-hmm. bind wala tamit nga commencé kun faya kun gi mujj mm-hmm. yooyu yëpp day nekk ci mbind léeg-léeg euh, parfois am ñëw tamit beneen melokaan nan laa doon bëgg a mi ngi génn sama xel maanaam euh, buñ bindee yooyu am tamit koo xam ne da ngay gis bind bi mu bind pratiquement allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim gi koy tëj ak kun faya kun gi koy ubbi ak faya kun bi li des lépp ay xaatim la Mm-hmm. xaati mi question ay chiffres yooyu mën na mën na kii ñëwaatoon lépp laa boole defal la benn question mm-hmm. quoi comme asawa jàlla mm-hmm. euh, moom rek a war a ubbi ak sadaqallahul azim moom rek a war a tëj wala moom rek a war a ubbi wala euh, allahumma salli ala sayyidina wa sallim moom rek a war tëj daal waaw xam nga dafa am ay baat yoo xam ne maanaam sooy bind moom ngay jiital waaw lu mel ni nga ne kun def 66 am na nag yeneen looy loo ay yeneen baat yoo xam ne da nga koy jiital maanaam ci mbind mi loolu da ciy am des léegi na lool soo ko defee ba noppi da nga ciy teg salaatu ala nabi soo bindee la ngay bind ba noppi nag mm-hmm. léegi nag dañoo wax ne nga bind la nga bind ci suuf ba noppi salaatu ala nabi moo ko war a tëj diggante ñaari salaatu ala nabi nag dañoo wax ne maanaam lu ca nekk rek ijaaba yàlla eh, am na ijaaba yàlla mën na koo nangu waaye lool itam day fekk ne bu fekkente ne ne léegi xaatim la mm-hmm. xaatim tey bu ma la ko doon misaal dama lay wax ne la maanaam jëmmi xaatim ci jëm boppam rek maanaam lu daseer la ci nit koo xam mm. parce que waxuma nag ku koy wax nii te xamuloo ko mm. nga xam ne tey bu la ko defaloon mënoo koo liggéey waxuma ko waaye jëmmi xaatim moom ku ko xam mm. am na ci xaatim yoo xam ne maanaam moom jàpp moom moo ci gën a gaaw maanaam jàpp nit wala jàpp lu mu mën doon maanaam téye ko loolu xaatim moo ci gën a parce que xaatim li problème ba li ma la ko mën a waxee mooy comme jëmmi doomu aadama xam nga jëmm boo ci roccee roo defe naa ne léegi am néew lay daal tudd maanaam ci misaal la pour nga dégg ma yow xam naa fi may waxe day xaw a kaw waaye pour am na lu may misaal da nga ko xam mm-hmm. léegi nag su dee xaatim nag maay mooy ruuxu alquran waaw maanaam mooy chiffre mooy ruu ruuxu nit ki mm-hmm. maanaam gis nga ruux fi ne fi mu nekk ci doomu aadama xamoo ko gis nga ko fi ne mënoo jàpp ruux gi génnee ko te ruux fi ne bu génnee ci jëmm kii ba léegi alquran ci jëmm boppam na dafa am jëmm nii léegi bi mu amee jëmm mm-hmm. dafa am ruux ruux googu nag léegi ci lay borom xam-xam yi dem ne ci lañ génne adat boobu nga séen moo waral tey buñ ne laa inna haasa la risquna maaluhu min nafaadin nga xam ne aaya bi léegi ci wërsëg lay dox ñu ne la demal nag ca rooga nga dem fa fekk fa 1447 1447 yooyu nag soo ko jëlee nga def ko xaatim mm. ba noppi te xam na nga koy liggéeyee xam gan garab nga war a jëlee composé ko moom mm. ba noppi nga xam nit ki ma ban tab ban tab la bokk saafara si da ko war a tàngal wala saafara si da ko bàyyi war a bàyyi noonu mu sedd mm. bëccëg la ko war a sangoo mm. wala guddi la ko war a sangoo mm. wa ilaa maanaam laa hawla laa xawla léegi yaa <laughs> léegi loolu maam nit koo xam mooy nit ki xam ne waaw voilà dafa xam li mu bëgg a xam noonu normal léegi nag kooku nag mooy mën a def lu leer nañ ñi maam ay résultats yu leer nañ ñi maanaam comme waaw xaatim li ma la ci wax nii loola moo ci nekk xaatim comme ni nit taxawee nii noonu la xaatim taxawee waxoon naa fii ne nit maanaam juróom juróom-ñeenti bunt la am waaw bu dee jigéen moo am mm. fukki fukki moo moo am fukki bunt ak benn moo huwa oh. parce que ñaari ween yooyu génnee soow la mm. waaye yeneen yi ci di yëpp bu ci nekk bën la bët fa mu nekk bën bën la nopp bën bën gis nga boo ko wàññi juróom-ñeent la mm. imaamul xasaali yi ci la tëgg masaalu xasaali yi léegi masaalis xasaal yi buntu yooyu bu boo bëggee defar mën ngaa jaar fii boo bëggee yàq jaar fii boo bëggee defar jaar fii boo bëggee yàq fii loo bëgg a def mën ko jaaral ci buntu yooyu mm. waaye xam-xam yi yàlla du ko xamal ko ñeme yàlla wala mm. ab trian loolu na leer il faut mm. nit ki day sellal xolam mm-hmm. sellal ruuxam jaa ko te di am lu muy rus ak lu muy bañ ba yàlla fekk si ko ca loola maanaam jox ko nag yenn sirru yi waaye ku yaakaar ne sirru ko sëbaxal li ngay wax kon mën a ak euh, buy liggéey lu set moom mënul am résultat buy liggéey lu set waaw xam nga déer gis nga bu fekkente ne turu yàlla ngay liggéey wala ngay dox ci alquran ju leer naññi wala ngay dox ci kayfi yu leer naññi loo xam ne mm. maam ci nóoraani yu la jëm mm. yooyu moom mënoo koo jege parce loolu mm. mënu yënul maanaam parce que boo ko defee moom xalaku nga nga jege ci ci ci ci dafa mel ni maanaam euh, euh, nga taalib séebu rek sotti ci ndox ku ne xam ne ku naan du fay xam nga da li ngay wax xamoo bi noonu noonu la ah, demee leen gisatuma leen hmm. te xewoon nañ jékki-jékki xew yi ñeneen di xew hmm. kon ku nekk ci dëgg rek mooy continuer la voilà xanaa xam nga ne dëgg hmm. lum sew sew sew mbaa xam nga ne ëllëg mooy mujje mooy mujj waaw waaw dëgg rek moo am solo gis nga doomu adama hmm. loo mën a nekk ci adduna ti nekkoo ci dëgg bis dana dikk nga xam ne maanaam lii mooy dëgg bu ko defee dëgg goog nekk ci xanaa xam ne <laughs> ki hmm. lépp lu mu dugg maanaam tëru dëgg hmm. bis dana dikk mu xam ne lii mu nekkoon di kat woon ko nekk ci dëgg gën waaw parce que noonu la yàlla bindee jamono waaw waaye nag képp koo xam ne moom suñu borom dafa dogal nga am xam-xam borom te nekk ci dëgg di doxal dëgg maanaam bal yàkkamte dara maanaam lépp adduna bépp dana mu la mujj di ko si la mhm. ndax dëgg gaa mel noona dëgg gaa mel noona mais am na foo ma leeralul de maanaam euh, kii bindal sëriñ ba mu yàgg mu yàkkamti beru ci bu dee am na barke boo defoon ci moom da koy topp wala bu demeewul ndigal du ko topp waaw am na ñoo xam ne xam nga nit ñi rek dañoo yëmul dañoo yëmul am na ñoo xam ne suñu la joxee dara maanaam mën nañ koo jël ci yow mën nañ koo jël ci waaw xam nga duñ jël kayfiya bi ci yow waaye barke ba la ñu rocc <laughs> loolu moom am xam-xam moom xam nañ li ma wax xam nga waxoon naa fii ne maanaam am na ñoo xam ne da ngay dikk nuyu leen ñu jël la nga yor ma waxoon fii ne am na baat yoo xam ne man su ma la ko jàngalee ba nga xam ko nii boo ko tafalee solxo bi koo nuyu lu maqam mën a yor lu mën a yor ci suru bu la nuyoo mënta yóbbu sa dara mënut a yóbbu sa dara <laughs> léegi nag loolu. Mm-hmm. xam-xam la. xam waaye nag xam-xam boobu du du du du du bokkut yii. Mm-hmm. yooyee xam-xam yeneen i xam-xam la yoo xam ne. Mm-hmm. xam-xam la ci biir xam-xam yi parce que xam-xam xam nga ilmul asaar dafa am. ilmul baatin am ilmul baatinul baatin am. ilmul xaas am ilmul xaasatul xaas am. yaa ma may dégg waaw li ma la wax nii lépp nag boo demee ca ilmul bastu xam ga bastu xam nga adat yi. tey ma ma soo demee xam nga tey adat boo xoolee da gis ne maanaam euh, alif nga ne benn la ba yaar yaa ngi dégg noonu nga koy waxee xam nga ba mu jeex mm-hmm. fi mu ne tey boo ci duggaatoon ci biir mm-hmm. maanaam nga diggu ci ilmul bëstu maanaam alif du doon benn fukk téeméer ak fukk benn lay doon gis nga ko te alif la de waaw nga nga kóot newaat murakkabaat yi mm-hmm. day dem ba da yéeg nga dem ba ci muta muta mutaxakabaat yi day demaat ba day yéeg nga dem ba ci xuwatul kulliya xuwatul kulliya nag mooy mooy mooy mooy lim yi nga xam ne ci la góor yàlla yi nag daan daan daan defaree nag yu kawe waaye nag yooyu itam du ko jóg xam ko xuwatul kullee dafa am lépp loo gis dafa am xuwatul kullee mooy yow tay bu ma jëlal sa tur mën naa ko topp ba ci xuwatul kullee ma ne kii fii la yem dootoo ko passé loolu mooy xuwatul kullee léegi nag maanaam nit ñi xam xam-xamu asar boobu ñoom buñ la joxee këy fi ya mën nañoo rocc barke ba du jàgg ne këyit bi la ñuy jël de waaye surru ba waaye dafa am nun koy beenee ñoom ci seen xam-xamu bopp mm. fexe ba rocc waat loolee ko ndànk ba noppi yow nga dese kayitu kese maanaam loolu dafa am ci biir xam-xam te li may wax nii mhm. borom xam-xam xam laa te am expérience mhm. xam nañ li may wax mhm. sëñ Modou Kébé dégg ngeen ko bu baax a baax xam-xam ngi feeñ bu baax dafa am faneen fu ma bëgg dama déggoon ngay wax euh, euh, xam-xam euh, ngay wax jant bi biddiw yi am na jour yoo xam ne que biddiw yi da nga jékki doo leen gis am jour boo xam daanaka day mel lay niis doo gis jant bi am bis yoo xam ne que weer bi di ñëw bis yooyu lu ci mën nit mën na ci liggéey dara wala mënul nekk waaw xam nga ilmu du joom mm. maanaam il faut nga xam nga xam nga maanaam nga xam tafasil yi mm. maanaam benn xam nga ilmul maanaam ilmu nu joom mm. maanaam dafa am ay façon maanaam xam tey comme tey maanaam tey bu fekkente ne eh, maanaam ilmu nu joom maanaam bi ah, jant bi maanaam day daw ci fukki burje ak ñaar boo ko defee armée day jeex xam nga da ciy daw ni mu ciy dawee da ci da ci am ay managil mm. da ci am ay managil yoo xam ne fukki fukki fukk fukk ak ñett la ciy am fukk ak ñett mm. fukk ak ñett lay dagg jëpp atu rek jëpp atu nekk ci ci ci ci ci kaw kabu asad mm. boobu rek moo amut moo moom moo ci tegal fukk ñett waaye ci des yëpp maanaam fukk ak ñaar la la ñu dagg falak bi mu jeex so weer wi tamit nag da ciy daw waaye weer wi dafa gën a gaaw jant bi xamoo ne parce que jant bi moom weer wu mu dugg da cay am trente jours wala trente un jours moom la cay am mu jeex tàkk mu mu mu bàyyi booba daal di jëlaat beneen buróoj léegi nag su dee weer wi weer wi bu ne bu bu tëbee rek benn benn fan maanaam ñetti fan yu ne mm. maanaam ñetti fan yu dana ko am ci benn buróoj ak xaaj mm. maanaam ñaari fan ak genn wàllu fan dégg nga moom la ci am léegi nag loolu moom tamit day jaar ci manaasil yi wala xamru xadarnaahu manaasil ñu ne ah mu ne xarta xaada kal xurujoonil la samsu yan baxi laa antudugul xamaru ndax kat walaa leelu saabiqu naar wa kullun fii falak falak bi nag mooy comme noonu mooy nga xam ne manaasil yi da dawaat dañuy daw ci biir léegi manaasil yooyu nga séen manaasil yooyu am na ñoo xam ne da ngay gis ñoo xam ne dañuy xool soxna nii daal na soxna si baax na dëgg la lañ wax baax na parce que biñ ko xoolee baax na waaye nag sëy ba la muy baax baax fañ ko takk baaxul waaw parce que boobu euh, weer wi mën silutu bi mu nekk loolu kuñ ca takk hmm. benn bala ngaa sëyi hmm. góor ga dana faatu hmm. wala boo sëyee jigéen jigéen ja faatu wa ilaa balaa yàgg tuuti yéen ñaan ñëpp ngeen takkali ko wala nga dégg ci mbir mu rëy moo xam ne day war jamono fekk boobu sol kis maanaam euh, maanaam jamono jiñ takk sëy ba jamono jooju dafa fekk xamar mii dafa nekk ci mën silutu boo xam ni maanaam normalut normalut ci nit war caa takkab sëy même am na loo xam ne boo ko dee tàmbali sax mën silitu yooyu soo ci ñëwee taxawal mën silitu yooyu maam nga def ko ci te xamoo mën silitu yooyu lu mel ne sanc dara mm. boo ko defee te mën silitu bi nga ko def du mën silitu bu ñu war a sanc dara mm. la nga du dox parce que day waaw loolu mooy loolu mooy sël bi yaat mm. maanaam boo demee ci ilmu lu jëm dafa am ijaab bi yaat bu dafa am ay sël bi yaat fi na ne loolu li li koy dindi fi mu ne maanaam lu yomb la yaa ngi dégg waaw <laughs> yaa ngi dégg maanaam yooyu waaw <laughs> walaay ndeysaan loo loolu fi mu ne yu yomb la xam nga lu tax mm-hmm. mooy yooyu dafa am ay silbu yaay yoo xam dañ lay wax ne defal sarax sàngam bii mm-hmm. yaa ngi dégg nga def ko parce que maanaam loo gis rek ci ilmu nujoom yi hmm. daf maanaam bu fekkee maanaam waaw waaw normal waaw boo ci duggee <laughs> <laughs> mu mu nga waaw <laughs> jërëjëf sëñ Modou Kébé bindal bindal maire ba bu dee mu bindal bi tamit xam-xam rek di a ngi feeñ ñun daal lii moo tax sëriñu comédien yi nan ko bàyyi faneen que euh, tegtal am na ñoo xam ne que kun fi gisul dun la loolu nag duñ ko foowe duñ ko caaxaane man du ma jël métier jàmbur di ko foowe kon sëriñu comédiens yi nga seeti faneen fuy def bës yooyu ñun xam-xam lañ soxla ak njariñ def dëgg def résultat mën naa indi nit ñi nag mais mënuma leen téye dafa 77 524 41 77 77 524 41 77 moo moo mujj moo tàmbali numéro bi am na whatsapp ku nekk bitim réew insisté boo message mu yéex tontu dolli booy woote jëlul après woote waatal beneen heure beneen bi 76 538 26 80 76 638 26 80 Serigne Modou Kébé nekk ci Touba Ndamatu gis ngeen maa nekk nii ak moom ci bedd Ndamatu yi di dox kon nga fekk fi dis ko mu ci man mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam téléwul dara taman na lépp hmm. da ngay dégg ku naan la Serigne buy génn télé wala génn internet baaxul kon boo dundee ba 2024 génnoo baax nga heure boo génnee baaxatoo loolu losigul da ngay euh, am na ci kii nii day jàngal ñu day jàngal ñu feeñ kon xam-xam moom comme man di doon rek man ku jóge Casamance sax mën na ñëw seet si ko affaire bi nag nekkul ci ñàng de ci baax la nekk ak qualité ak jub ngeen bàyyi ko xel lii mooy njariñal tegtal dañoo bëgg boo koy seetaan nga yew di xam di xam fi ngay teg sa tànk dégg nga ne am nañu sëriñ booy gis ci tiktok bi muy fanaan mu jox lay bagage ndekete looloo la tëj nga tëju ndekete xamoo lan la kon nit day tege ci yoon bu baax a baax nee naa leen sëriñu tiktok bu la joxe bagage fexe ba xam fan la dëkk ak la jóge dafa yomb du nangu ko xam dëkk jox lay bagage rek yónnee ko cat mu indi la ngay sangu di tëju te xamoo mooy kan mm-hmm. bu TikTok supprimer kii bi nga fàttu ji mm-hmm. kon xam-xam lan soxla sëriñu première division mm-hmm. sëñ Mour Kébé léegi ku bëgg kaaraange gu wóor soit muy kaaraange boo xam ne que kaaraange jëmm kaaraange njaboot kaaraange alal kaaraange société wala entreprise kooku ku ko bëgg loo ci man ay càngat lay doon wala xalwatu lay doon wala lan lay doon